الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين noo ngi nuyu bokk yi fi teew yépp di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bis bii di leen ndokkeel it ci bis bu màgg bi nu dëgmal muy màggal Tuuba waaye nuyoo bi ak ziyaar bi nu ci jiital Sëriñ Sidi Muxtaar di ko jaarale ci loxol njabootam gi fi nekk muy doomam ji ko teewal fii di nuyu it di ziyaara njabootu Soxna Faty Dia Mbàkke gi fi teew te ñu tuddee ko bis bi tey di nuyu mboolem mbokki taalib yi fi teew di leen ziyaara di ñaan yàlla mu nangul nu jëf yi te làqal nu ko fu yàq yëgul mu mel ni kon danoo toll ci waajal màggaluk Tuubaa te bis bi tombeek euh, bis bi sëriñ bi ñibbi euh, sëriñ bi ñibbiseewul ci buñ koy natt ci weeri tubaab yi bis bi lay tolleel lay tombeel jóge ci tukkembo bi euh, te màggal gi moom mu jàpp ko ci bisu dem bi bis bi muy départ dem la jàpp ñu di ko màggal mel ni ni dañuy wax ne léegi comme bis boobu la signanteeg suñu borom contrat bi mu war a liggéey day mel ni bis boobu ci lépp lu yënti ko moo tax mu jàpp ko di ko màggal mu mu doon bis bu am solo ñu di ko def at mu jot di ko tuddee kenn ci njaboot Serigne Touba gi tey ñu tuddee ko ki mag ci doomi Serigne yi ci jigéen ñi soxna Faati Ja Mbàkke mooy ki mag ci njabootu Serigne Touba góor ak jigéen sax nag mooy ab taam mu doon jëmm joo xam ne it euh, dafa niru lool turandoom muy Fatima mi doon doomu yonente bi sallallahu alayhi xaj na nag doomu yonente bi Fatima mooy ki gën a ndawee ci doomu yonente bi ci ñi am xadija bu dee moom mi nag moo mag ci njaboot Serigne Touba waaye day mel ni kër moom jëkk fa ak mujj fa dañoo xaw a nuroo ay mbir la moo tax ñu niroo lool ndax euh, mën nañu ni euh, soxna Faty Dia mi ngi juddu ci Mbàkke Kajoor ci 1878 ma gënal sëñ Manu Sall mat fukki at mbaa mu jege ko Maamoor Anta Sali moo ko tudd waaye li ëpp solo ci liñ gën a soxla ci yoonu murid wi soxla ko ci diine islam muy ak ngëm suñu borom defaloon ko ko loolu tax man dañoo niroo lool moo ko turandoom Fatima bintu Rasul sallallahu alayhi wasallam ndax moom mu ngi juddu jëkk ñuy yónni yonente bi tuuti waaye mu doon ku juddu rek gis baayam mu nekk ci wooteek wooteeg nubuwa gi mu teel a gëm lool eh, bàyyam it fonkoon ko loolu warmaal ko moom yonente bi sama sama mu néeru ko ak soxna Faty na soxna si li xam ci moom ak tali bi ak tali bi gis Sëñ Tuubaa wax ni moom rek a fiy jariñe kenn da ko koo wutoon ba sëriñ bi seeral ko ko ni moom day murid saadix la innaha muridatun saadixa ba sax eh, ñenn ci ay njabootam yu jigéen ba ñu jàngee ba noppi dañ leen yebal ci soxna Faty Dia ni leen dem leen mu jàngal leen ak tali bi kon lim nuru turandoom boobu muy euh, soxna Fatima soxna si yonent bi sax muy doomu yonent bi sax dafa bari lool nuru na ko ci pas-pas niru ko ci coono bu ñuy jànkonteel ci dina mu jànkonte ko moom moom moom soxna Fatima waaye soxna Fatima it sëriñ bi ko jàngal boppam yar yaral ko boppam tarbiye ko ci ak tasawuf wax nañu ni am na jamono boo xamante ni ba mu ba mu tollee di ko yar dëgg dëgg dëgg bis bu set euh, lo lo day ngëpp ngëbub cere rek jox ko ak kubéeru satal ak ndox ci loolu la ko tarbiya ba mu not bakkanam fekk àdduna loolu mooy doxal àdduna mooy doxal diine mooy nit ki bu nutul bakkanam sax du mën a téye dara ba ci jamono bii nu toll nii bu ñu ko ba la ñëw fa benn président di ko dénk dara day fekk ñu jaarale ko ci tasawuf ba mu not bakkanam ba noppi ba nga xam li muy liggéey lépp daf koy liggéey rek ngir dimbale nit ñi ak jàppale waaye du ko liggéey du du fa nekkal bakkanam ñëpp ñu mu daan tarbiyee jaaral na fi soxna Faty Dia moom kon jëmm jooji moom lañu tuddee bés bi mu doonoon ko amuk talibe talibe gi ñu wax ni ba ci doomi Sëñ yi nga xam ñoom ñëpp moo leen mag da leen a war maa doon jàppee leen rek doomi sëriñam maam Sëriñ Tuubaa xamu ci woon lu weesu daal ni sëriñam la waaye jàppee ko sax baay loolu kon dara la ci lu ñuy leeral ci soxna si li ci des xam naa sëñ sëriñ bii fi teew ci njabootu soxna Faty dina leen ci gën a dolli ay ay leeral incha allah bis bii nu dëgmal nag mooy bisu màggal gi te sëriñ bi digle ci li mu ci digle mu dëppoowaat lool ak euh, bis ba mu demee ndax bisu gaawaloon mu dëppoowaat ak moom ci at mi loolu def mel ni tawfeex la ju ci suñu borom feeñal xaritu yow ma sabtu jooju moo xam mu mel ni it euh, sëriñ bi moo ko woote euh, ba mu koy wootee dane woon léegi bis bii kat lépp lu ma sama borom defal ci la ma ko defal mu bëggoon saa bu ñëwatee li dalee ci ganaar ba ci gileem lu ci waaye man na ma ko ci defal sant lee ma ko sama borom mu mel ni kon dañoo sant ab liggéey ñu jàppale ko ci ab liggéey te liggéeyam yëpp nag mosu ci santaane benn bu dul boobu waaye ma ne nit kese kese yi sax ku ci wow mbooloo ni leen kaay leen may ma ab liggéey tey buñ ko koy may dana waajal kafe gu ñu naan dana waajal lu ñu añe dana waajal lu lu ñu xéwloo doote na woo nit kese kese yëpp ku ci woo nit ñi ci ni leen kaay leen may ma liggéey tey jëkk mu leen di woo rek dana fekk mu waajale leen ab dund ba noppi lu ñu añe ba noppi kon sëriñ bi bisam li ci sëñ Abdou Khadir daan wax rek daan wax ne koo xam ne ku am bis moom nga ci yaakaar bisam jërul tit dana ko waajal ku ne xam na ni mi ngi koy dana ko waajal sant nag sant nag sant la ñu diggal ñu defle ko ko boroom sant nag euh, daa bokk ci maqaamaatul yaqin yi mooy ñetteelu maqaama ci maqaamaatul yaqin yi léegi ba ahlu tasawuf dañuy wax ni nit ki bala moo gëm yàlla ngëm gu mat sëkk ba ak ci li ñuy wax yaqin dafa am juróom-ñeenti étape yoo xam ne mu jaar ci ay test lay doon yoo xam ne bu mu ci bu ñu ko bu jàll ñu jàll ci benn bu jàll jàll ci benn muy diggante taw ba tuub lay jëkk def tuub tuub googu nag boo ko defee fas yéene dellu ci sa borom jox ko sa lépp danaa la testé ba xam li ngay tuub dëgg la wala dëgg nattu la danaa la teg am nattu nattu bu tar ba xam li ngay wax wér na bu wérut da nga daal di bàyyi bu wéree nga jàll bu ko fee bu wéree nag wér gi la nga xam ne wér na mooy danga koy muñ nattu bu mu la teg nga muñ ko bu mu la kon muñ mooy ñaareelu étape bi waaye boo boo muñee nag ba mu jàll da lay defal xéewal goo xamante ne sant ciy war ñu xool ba xam da nga sant wala doo sant cant googu kon mooy troisième étape bi moom la doon Sëriñ Tuubaa digal léegi. Euh, kon Abu Taalibul Makki mi taalif téere boobu mi ngi ko tuddee xóotul xulub mu mel ni sant kon sant kon ci liy dundal xol la bokk ndax xol dafa soxla dund dafa soxla dund ni ko yaram di soxla ni nga xamee ni aw yaram bu dundul day tawat daal mën a mën a dee ab xolit bu dundul ci na war a dunde tawat mën na koo digal mën naa dee moo tax yéefar yi suñ borom da leen tuddee ñu dee ndax xol yu dee la laa tusmihul mawta jullit bi nag war naa fexe ba loolu yi nga xamante ni bu ko suuxatut bokk ca way dee yooyu mu di ko suuxat fi mu toll mooy xol te sant gii rek bokk na ci loolu di dundal di dundal xol léegi kon sëriñ bi dana jàngaloon ni bés bu set na ngeen fexe bay am leçon wala takun fi kulli yawmin taarika taalluman summa bihi amal naasika mooy bés bu ne na nga fexe ba jël leçon te leçon bi nga jël na nga ci nanga ko jëfe mu mel ni kon loolu bis bu set la wax fii nag at mu jot dañ fiy daje ginnaaw bi bu set la wax nag kon lii bis la ci bis yi ñu war ci di jàng leçon bu bees bu bokk te bi ñu jàngoon daaw mu mel ni tey kon leçon bi fi muy jëm biñ leeralee ni maqaamaatul yaqiin yooyu te mooy li tàmbalee ci tuub nga def ko yàlla tes la ba mu wér nga jaar ci muñ jaar ci sant jaar ci ragal yàlla képp mu natt la ba xam moom képp nga ragal wala am na leen loo ragal jaar ci yaakaar ko moom képp jaar ci mu xool la ba xam li ngay wootee adduna nga ciy wut wala dëddu nga adduna jaar ci sàmmoonte sa digganteek moom jaar ci bëgg yàlla jaar ci wétli ko wétli ko yooyu yëpp nag buñ ko waxee résultat ba fa muy feeñe mooy ci jëflante bi ngay jëflante ak nit ñi fi mu toll nii ku koy julli mbaa muy woor mbaa muy sikar mbaa muy jàng alxuraan dafa jublu defar xolam xol bi bu defaroo mi ngi feeñ dëgg ci jëflante nit ki ak nit ñi saa bu xol bi defaroo jëflante bi ci sa diggante ak nit ñi day daal di feeñ loolu moo waral tey ñu tànn ci waxtaan wi ak mbokkoo ci diine ak mbokkoo ci diine lañ tànn ngir waxtaane ko tey jii kon mbokkoo gi maa ngi koy teg ci ab muxaddima mooy laltaay boo xamante ne dinañ ci leeral dëgg-dëgg fi ñu jëm ak leeral lan mooy ak mbokk dëgg-dëgg lan mooy mbokk dëgg-dëgg lan la ci jublu ci ni ko alxuraan taxawale taxawale ak jafe-jafe yi yàq diggante nit ak moroom ji yàqu-yàqu yi ci am bu ma noppee nag indi ay solution ci yàqu-yàqu yooyu lan moo ko mën a defar dootu ko tëje nag lenn ci ay ndénkaan kon waxtaan wi ginnaaw mu xaddima bi ñetti tomb rek la ak kub mottuli may wax ne nit ñi nit ñëpp benn bëgg-bëgg rek la ñu benn bëgg-bëgg bëgg benn bëgg-bëgg la am muy muy jàmm nit koo gis rek jàmm lay wut jàmm jooju ne li ko mën a may mooy am li nga bëgg ak mucc li nga ragal nit ki bu amee li mu bëgg mucc li mu ragal jàmm am na léegi bëgg-bëgg boobu nag day nit def koy gàttal mbaa mu yaatal ko ndax ñii seen bëgg-bëgg bépp day yem ci àdduna bu ñu amee li ñu bëgg ci àdduna lañ doon ragal ñu mucc ca léegi am nañ jàmm léegi kii yaatal ko ëllëg lay xool tey ak ëllëg mucc tey ak ëllëg jullit bi nag foofu la nekk muy mucc gi ak xéewal gi tey ak ëllëg li ciy xool kon nit ñëpp bi ñu bëggee jàmm la leen mën na may jàmm mooy ñu am liñ bëgg la ñuy ragal it ñu mucc ci suñu borom it may na nit ku ne may na la droit ci jàmm jooju nga wut ko waaye nag day rëdd aw yoon woo xamante ni ci nga ko war a wut liberté gi dafa am fu mu yem dana la may nga wut jàmm waaye nag doo ko tabax sa jàmm ci kaw ñàkk jàmmuk doomu may na la nga wut ak texe waaye doo ko tabax nag ci kaw texee dig doomu may na la nga wut euh, nga nga tedd waaye nag doo ko tabax ci kaw toroxtaane doomu aadama yàlla moom may la nga liberté wut jàmm waaye nag bul ko tabax ci kaw xañ kenn jàmm tedd nga jëm lay wutloo jëm la may nga wut ko bu ko tabax ci kaw toroxal kenn naka noonu texe jëm la wax nga may la nga wut ko it bu ko tabax ci kaw texe di kenn loolu daal mooy li nga xamante ni moom la suñ boroom rëdd te bëggee ko noonu bu ko defee nag bu ñëpp dee wut jàmm nag diine moom jenn la diine diine diine bi ju masaw ñëw rek diine ji islam la tudd diine ji diine ji ji yàlla reconnaître mooy islam waxuma nag muy ne sunu islam bi rek mooy islam waaye jëmmi diine yàlla yónnee yëpp islam la tudd islam la tudd juróomi ponk yi yonente bi wax ne ci lañ tabax islam muy dañoo tabax islam ci juróomi kenn bu ñëwee di islam xalaa xamsin la wax muy an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqaami wa itaa zaka wa sawmi ramadan wa xajjil bayti juróomi keno yi nga xam ne yonent bi dafa xam ne ci lañ tabax islaam mbooleem diine ju ma sa wàcc ci juróomi keno yi nga tabax sa diine kon lii wuute du diine ji waaye yi ñu tabax ci kaw mooy wuute waaye nag diine yi bi mu fondaay woo ba noppi sharia li mu wuute wuute rek benn jub jubluwaay boobu la muy bëgg jàmm bëggal ko nii ñi la tax ma ni diine islaam képp mooy diine fa yàlla waxuma nag ni suñ diine ji ñu nekk képp mooy waaye dama ne yonente yëpp yàlla mas a yónni ci islam la leen yónni te lépp dafa sax ci alxuraan ndax juróom kan yooyu yonente bi wax ne moo fondé islam boo xoolee suñu borom dafa wax ci ahlul kitab ni wama umiru illa li yabudullah muxlisina lahu dina xunafa wa yuqimu salata wa yutu zaka kon tawxid bi dikk na iqaamu salaa dikk na itaa u zaka dikk na bu dee koor mbooleem yonente bu ñu mas a koor farataaloon nañ ko ci moom kutiba aleykum siyaamu la alxuraan wax kama kutiba ala alladina min qablikum comme ni ma ko farataale woon ci ñeneen jiitoon bu dee aj walillahi ala naasi hajjul bayti ibrahim mooy abul ambiya itam moom lañ digaloon mu fande kaaba gi kon juróomi keno yi ñu tabaxee islam ma ne dina yëpp juróomi keno yooyu seeni keno la leneen loo ci tabax ci ay jikko nag doo ko caa tabax ci kaw waaye ñu xam nag ni loolu ay fondation la tabax bi nag mooy li ñuy jëlaat ci ay jikko di ko jëfandikoo ci kaw moom la ñuy tabax ci kaw kaw kano yooyu te yonente bu ma sa waat it la ngay woo jëkk wax mooy ubudullah ak fattaqullaha wa atiyuni ragal leen yàlla te topp ma kon ñoo bokk lu ñu woote moog yonent ñoo yonente bi sallallahu alayhi wa bu demee noonu nag te suñu borom li nit ñi bëggal seen bopp muy jàmm moom la leen bëggal te it gën leen a xam yàlla ñuy jaar pour am ko yéene ju nit am ci bopp boppam rek yàlla yéene na ci yéene yéene na la yéene ju kon suñu borom jàmm la bëgg nit ñi te dëddal na leen yoon wu ñuy jaar ngir am jàmm jooji kon dara desul lu weesu ligne ba mu rëdd nii nañ ci jaar pour am jàmm rek ñu jaar ci pour jàmm mën ndax nit moom digganteem ak nit ñaar rek fi mën a am mbaa aw nit ki saabu relation bu baax amul si diggante moom relation guerre képp mooy dox si te loolu yàlla bëggatul ko ndax du may kenn jàmm dañ nag nit dafa amuk yàkkamti loolu dafa yàkkamti suñu borom moo bind doomu aadama mu yàkkamti nga xam lu maa doon day bëgg mu sotti tey tey te suñu borom bindewut noonu àdduna ndax nit sax bu juddoo doon ab liir la muy jëkk jàng mooy nu mu yëngutoo bu mënee yëngutu la muy jëkk jàngaat mooy nu mu jóge diju mën a diju bu mënee diju la muy jëkk jàngaat mooy jóg xaw mën a taxaw ñaari tànk bu mënee taxaw la muy jëkk jàngaat mooy mën a dox bu mënee dox la muy jëkk jàngaat mooy mën a dox étape yooyu nag nit di jaar adduna bépp ci lay jaar ñu noonu la adduna doxe fi nii fokk ndànk fa ndànk ndànk fa ndànk dara du ci dara mënta tëb rek sotti na benn loolu di ko xam da ciy baax nii bu ko defee nit ki bu jógee ba weesu marta boobu la muy jëkk la muy jëkk a def ci ku ku nekk ci àdduna mooy di sukkandiku ci nit ñi gone baayam ak yaayam ak meneen mag mu jëkk ñëw rek ci yow lay sukkandiku baayam ak yaayam ak mag moom mu jëkk gisal waaye day dem mu jàgg nag mu mën a sukkandiku ci boppam di dem di dem ak ñëw kenn du ko yóbbu duñ ko fab duñ ko yëkkati mu mën di dem ak ñëw dama dem ba ci étape boo xam ne nag day sukkandiku ci nit ñi nit ñi sukkandiku ci moom mooy nit kon étape bu mujj boobu bi nga xamante ne mooy ngay jëf leen ak nit ñi ci di leen jariñ ñu lay jariñ nga mënal leen nangam ñu mënal la nangam loolu mooy étape bi mujj ci doomu aadama te doomu aadama du ko weesu kenn du ko weesu moo tax nit li mu war a jëkk jëkk yëg rek mooy faqiir la antumul fuqaraa ilallah mooy ñu soxla yàlla ngeen waaye yàlla gisoo noonu nga soxlaa nit ñi it nit ki ni mu aajowoo yàlla noonu la aajo yàlla du mënu da nga koy aajowoo benn seconde bu ne yaa ngi ci aajow yàlla ndax euh, noyyi gi ngay noyyi muy dem war a dellusiwaat képp bu yàlla téyee loxoom du dellusiwaat te mënoo ko ñàkk kon yàlla moom benn seconde bu ne nit ki daf koy soxla waaye noonu mu soxlaa yàlla nag ci seconde bu ne noonu lay soxlaa nit ñi ci ay jamono ci nit moo tax nit fokk muy jàppalante ak nit ñi kon tomb bu mujj boobu rek te mooy nit ki war di jëflanteeg nit ñi ci di leen jariñ ñu koy jariñ muy jëflanteeg ñoom ñuy jëflanteeg moom tomb boobu rek mooy li ñuy bëgg a ji muy mbokk mbokk ci diine kon laaj ñu laaj kon mbokk googu lan lañ jublu dëgg-dëgg ndax mooy nii ko nit ñi jàpp rek ndax bu ñu mbokk rek la xel yi jëkk dem mooy ki nga bokkal ndey mbaa ngeen bokk baay mbaa ngeen bokk nangam nangam bokk ci deret nii rek la xel yëpp di jëkk dem waaye mel na ni mbokk ëpp na lool ndax képp koo xam ne sa digganteeg nit ki am na lu leen takkee rek ay mbokk ngeen fi toll nii adduna bépp ay mbokk lañ waxuma ne nit ñëpp de adduna bépp laa wax ay mbokk lañ ndax luñ bokk ñoo bokk ñoo bokk borom ñoo bokk adduna bi kon am na lu ñu bokk bokk kon bu ñu ko waxee ëpp na lii ñu ko teg bokk gën naa yaatu loolu bokk àdduna bépp ay mbokk lañ ngir lépp loo xamante ni ak buum la gu takkee nit ak nit rek gu takkee nit ak jëm ak dara rek loolu ak mbokk lay takki muy ñoo bokk boroom ñoo bokk àdduna bi kon loolu la jëkk lijjanti bi moo xam nag bu jàllee nag ñu ni ñoo bokk doon ay doomu aadama ndey ak bu jàllee ñu ne waaw ñoo bokk diine bu jàllee ñu ne waaw ñoo bokk tariixa bu jàllee ñu ni ñoo bokk am réew bu jàllee ñun ñoo bokk ab relation noonu la ak mbokk demee lu ngeen bokk rek am na relation bu leen boole ñu war ko sàmm nag seet nañu kon mbokk googu ma wax te sànq ni léegi ñëpp ñoo bokk fu ñu jëm waaye yoon ya ñuy jaar mooy wuute ba ci bu ñu déggee ñu bu ngeen déggee ñuy tudd solidarité sociale day dugg ci biir ron lii ma tudd ni muy mbokkoo ci diine mbokkoo ak mbokkoo rek diine daf koy tuddee ak mbokkoo ñee tuddee ko nee na leen neex rek waaye benn programme bi la ñoo bokk yi fi ñu jëm googu ma wax nag diine daf ko xaaj ñaari xaaj muy mbokkuk deret ak mbokkuk diine muy bokk pas-pas mbokkuk deret gi suñu borom wax ci alxuraan ya yaa ayyuhan naasu inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu dama leen a bind ci góor ak jigéen muy aadama awa def leen ngeen doon ay peuple doon ay giir yu bokkut waaye lépp nag bëgg ngeen xamante rek xamante gi kon rek mooy mooy mooy illab suñu borom def nu ñuy ñuy doon ay giir ñu ay sénégalais lañ feeñu ni ñee ay tukulóor lañ ñee ay naar lañ ñii ay wolof lañ ñii ay soos lañ ñii ay nangam nangam lañ loolu lépp ni yàlla daf bëgg ñu xamante kon illab moo ñu xamante xamante gi nag ndax xamante képp am na njariñ waaye xamante amante mën a jàppalante kon loolu moo tax suñu boroom def mbokku askan googu jàppalante googu it mooy tax ñu mën a am société boo xam ni ñëppay am jàmm bu ñaareel gi mooy mbokkoo ci wàllu diine mu sax ci alxuraan ndax dafa wax ni innamal muminuuna ixwa jullit yi ay mbokk lañu kon bokkoon nañu waaye ñoom am na benn relation bi leen bu muy bokkaat pas-pas waaye nag bi ñaar yëpp taxawee it nag mu terminé ko ci nii waaye nag inna akramakum indallahi atqaakum waaye ki gën ci yéen nag mooy ki gën ragal yàlla kon mbokku deret gi dëgg la ñoo bokk deret waaye nag gënante amul kon ndax ñoo bokk ndey ak baay bokk ndey ak baay lu ñuy gënante ñoo bokk lépp kon du ci deret ji léegi la ci des kon mooy jaar ci ligne bi ki gën a tegu ci ligne bi daal kooku nag moo ma gënal kon ñoo bokk lépp ñoo bokk ndey ak baay gënante mënta am ci ñaar ñu bokk ndey baay waaye la ci des kon mooy inna akramakum indallaahi atqaakum loolu suñu borom jubal leer foofu ci ni ginnaaw bu ngeen bokk ndey baay yéen a yem bañ yem mu ne nag li ngeen di rawante ay qualité lay doon qualité kon gënaante foofu nekk loolu kon day tegtale ni euh, askanu kese kese dereti kese kese kese ji amul njariñ bu fekkee jikko baaxut bu fekkee nit ki ni mu jëflante baaxut bu fekkee aw doxinam dara rafetu ci loolu kon jikko ji bu amul rek nit ki amul benn valeur moom la sëñ bay jaxatee wax ci benn bay di wax ni ku lay jiiñatib sanga kay naw sa mbir xamal yow ni ab dof la sang kat ku bànnee xam ak addunaam ak bakkan di jëfloo ko wax loo du ab sangkat bu ab jant soo ngay fanaanee nelaw di neenal sa bëccëg du ak cangkat bu fekkoon sa baay ak sa nday ñëw fi gën te muumu bakkan yow gënoo kenn kat bu fekkoon sa baay ak sa ndey baaxul it te toppoo bakkan yow nga gën ñëpp kat ni dell ak ndox ak ñam ñu naa sang bii nga naa xoo ngirug ndaf da alkukat sa baay ak sa ndey gën te jàppoo bakkan di not faw taxtil nga dib sangkat ñi lay kaw kawee kay siyaaree ka gëm dañoo réere bon gi nga bon rekk kat bu fekkoon ña ngay jël sa bon gi nga bon ku jóg teggi lay wéy te lii xam ko kat kon inna akramakum illaa atqaakum mooy ni yéen ñëpp yéen a bokk ndey ak baay rawante bi mi ngi nekk ci ay wëlër kon teraanga yi nit ki mi ngi nekk ci kem nim sellale ak ruuxam kem nim rafetale ay jikkoom kem ni ab xalaatam rafete kem ni ay jëflenteem rafete kem yu baax yi muy def ni mu bare waaye gënaante bi nekkul ci alal nekkul ci alal ju bare nekkul ci tabax ay sato yu mag nekkul ci am ay ay ay oto yu rafet yu nekkul sax ci karaama yi wala yi muy di naaw ci jaww jeeg di dox ci ndox yi yëpp ni taxul rek mu garan moom la sëñ bay jaxte wax ne damaa dem ci ay sëg ma gis képp nit ni cundum ci bàmmeelam ak ay jëfam ma xam nag ni koo xam ni léegi mu jam bu yeewoo dafay teel a jëm ci mbiram jugal jëm ci say mbir te bul toppandoo ñi booleeg tàyyeel ak ngëmeen ak ngëlëm la nit fab di yóbbaale bàmmee la koy fajal lor lu dul loola faj ci loram te ak jur aku nit ku dee doo ko fab di yóbbaale fàggul ci sag dun ngërëm ku moomoon ku bootoon la ngay sange say kem du wërsagu yaa du mbooloo du ab juddu lii far ko xam ku moomoon kajoor ak bawol ak jolof te bëggit lu dul yàlla baaxul ndaxam karaamaake xar baax ak xam-xam ak alal dog na aw nit ñu ñu fonkoon a dem daal ne ña daan naaw ak dox di wax looy garab ku cay seeru boppam mbiram farfayam di dox cim ndox ak jàpp suus yi taxañ ak ay sël bu aw nit du may nit ngërëm la may ngërëm muñ lewet aw ndigal di jéggal ku lay mooy te far ko yërëm balaa yàlla may denk jaamam bi lëf dafay génn duniyaa bu wér ci cib xolam ku dunyaa mu bon miin dellu xolam amee ful béréb kañ bu aw yow di dem kon man ni gënaante bi kon nekkul ci ay alal nekkul ci ay xarbaax nekkul ci ay karam nekkul ci ay jikko jikko la jikko ju rafet sëriñ Tuubaa nag radiallahu anhu mës lu dul ñaari mbir ci la jeexal dundam bépp muy xam-xam ak diine diine nag bu ñu ko waxee day baat bu gàtt nii waaye dafa ëmb lépp xam-xam ak diine wa lastu raadiya gayril ilmi wa diine dafa xam ne dara ñoruma lu dul xam-xam ak diine am na fu mu waxit ni maa ngi jihaad waaye nag sama jihaad inni ujaahidu bil ulumi wa bi tuqaa ak gi mooy jëfe jëfe jëfe xam-xam rek waaye mës sa ay itam ci alal ak pouvoir mu mel ni nag nit ñi ginnaaw bu ñu bokkee mbokk googu gépp nag bokk nañu boroom bokk askan muy wenn benn benn ndey benn baay ñoo ko bokk bokkati diine loolu lépp teewul nag ay juyee yu bari ak i bëree ak i xeex di am ci diggante nit ak nit te am ndax la koy gën a waral mooy xalaat yi day wuute gis-gis walaat yi dey wute man lu ma jàpp nii bëgg ko lool mu ñor ma xomm bu ma atum caaxee mën naa am sa bëgg ko kon walaat yi ñuy jàpp mbir day wute wute yooyu nag mën naa andi ay kalan-kalan ba tey naka noonu jamono bu ne li ñuy pousse ci mbir mën naa woote waaye lañu cay lañ cay séentu ñu nit mën naa woote ba ba ci aw ñam sax mën nañu ko tiim di ko lekk mu neex ci ma neex ci yow te fekk nañ ko yëgee bokkut yëg-yëg yooyu la yàlla wóotale ci diggante ci biir doomu nit ñi ni seeni jëmm melokaani kaw yi nii noonu la xalaat yi wuutee ak bëgg-bëgg yi ndax nit ñi mënuñu niroo de waaye nag lu ñu niroo niroo gis ñaar ñu niroo bay benn amut fi toll kenn bokk ci sa moroom kenn ku ne représenté wu fi kenn sa bopp nga adduna damay wax ni nit représenté wu fi baayam doomam du ko représenté kenn ku ne sa jëmmi bopp nga fi représenté boo jaxee jaan kon loolu moo waral foofu la doomu aadama nekk moo tax ñaari jiw di faral dem te jamono bi ñu nii daa mel ni nit ñi ñu ci bari dañoo xatal xatal adduna dañ ko xatale mooy adduna dañ koy jàppee ni ab coupe bu ñuy xëccoo bu ma jotee perte nga ko mbaa ñu jàppee ko ni ab course bu ma la rawee perte nga te fekk demewut noonu kii mën naa nekk ndar kii nekk ndakaaru kii nekk feneen kii nekk feneen kenn ku ne di dund duñ yegoo duñ gise sax nag te kenn du yàqal kenn dara waaye nit ñi bu ñu ko bëggee jàppee dund bu ñu ko bëggee jàppee ni benn mbaa mu naqari loolu lépp ay njuumte la yoo xam ne xatal adduna lay teg te nit a koy def kon loolu nit mooy yaatal adduna moo koy xatal ndax yàlla waasiyan la dafa yaatu tey day bëgg nit ñi di dund turoo di dund xam ne yàlla ku yaatu la amul boox booxloo weer wii ngeen di gis ni weer wi mbindeefum yàlla la te su ma toogee fii kee toog fee kee toog ndar kee toog Dakar kenn ku ne di xool weer wi normal amul may ma xool may ma xool amu ci yoon yàlla moo gën a yaatu loolu may ma dem amu ci toujours rek demal mën tax Sëriñ Tuubaa ne woon na al ne woon na at-turuqul muusilatu yi eggal nit ci yàlla toll ne nooy mbindeef yi nooy mbindeef yi nooy waxul sax bakkan ñu jëm mbindeef waaye nooy lu ngay nooy muy dem ak ñëw lu toll noonu rek yoon yi la mën a ci yàlla toll noonu kon loolu amul xar-xar loolu amul boobu kon jullit dafa war a jàpp ci turu yàlla boobu di waase gëm ko gëm ni yàlla ko yaatu la bañ a xatal adduna bañ ko xatal ci bopp bañ ko xatal ci nit ñi yàlla day bañ sax nga xool lenn lu may kenn nga di ko mébét loolu bëgg ko fi toll lu may kenn ngay mébét naa ak nga xam ne ma am naa ko loolu sax yàlla daf koy bañ ndax dafa yaatu ba day bëgg nga jox ko sa bopp te bàyyi ko sa bopp mën laa tànnal loo xam ne yow la ko jëkk may te yow la ko ne lu mel noonu ma nga fa ma nga mu moo tax mu ne wala tatamannaw maa faddala llaahu bi ba'dakum ala ba'd bu leen bu leen mébét mukk li ma li ma xéwal gi ma defal nit bul xool genn xéwal di ko mébét genn rek ak nu mu toll yow joxal yàlla sa bopp te bàyyi ko sa bàyyi ko sa bopp moom mu seet nag wasalullah min fadlihi wasalullah min fadlihi day bëgg daal nga ñaan yàlla nga nelam te bàyyi ko sa bopp waaye bul tànn dara nag naa ko may ma leen bul xool genn bul mébét dara ndax mébét googu moo yóbbu nit ci muy iñaane nit ki te mën naa ñàkk boo mébétul dara nag xam yaatu yàlla nga bàyyee ko sa bopp mën laa maye ci côté boo xamante ni yow sax xalaatoo ko xelum nit toq ci woon le te day yaatu nga mën cee jariñ jariñ ci àddina bépp noonu la yàlla yaatu kon ngëm moom bu ñu ko waxee yaakaar la ak yaatal yaakaar ji yaatal la ak yaakaar yaakaar ji yaatal sa yaakaar te jullit it jamono bu ne fu mu toll tey rek ëllëg war na ko weesu ëllëg fu mu toll ëllëg war na ko weesu wala al axiratu xayrun laka mina al ula bi ko suñu borom waxee yëmul rek ci eh, àllaaxira moo gën àdduna waaye jullit bi bu fekkee wéral na ak njullitam tayam ji ne mooy mooy dàq démbam ëllëgam ji ne mooy dàq tayam ginnaaw ëllëgam ji ne mooy dàq suba te loolu la Sëriñ Tuubaa dund te lim dund ba déclaré ko rek dafa jublu nit ñi di ko dund dafa wax waa ay mis darat amusi sama tay ju ne gàcce na samay démb daal di wax it ni waa am si yoon séenii bi yow miw bi xat toujours rek sunu borom dana ma fàttaloo démb ci tey tey ëllëg moo koy fàttaloo mooy toujours rek xéwal gi yàlla def tey ju ne la fàttaloo démb ëllëg ju dana la fàttaloo tey te jullit noonu la war di avancer nag noonu la ko loolu la la sunu bëgg ci moom muy doxee noonu te bu jaaree ci ligne bi noonu lay defee léegi nag nit moom dafa baaxoo ngëneel rek la bëgg ngëneel lu baax ba ci bandi bi sax lu baax la bëgg ba ci kay fab fetalam sax dem di rey nit di jël alalam kooku jàmm kebal ba sax dafa jàpp ne lii moo koy jàmm rek muy alal la bëgg jàpp ne alal ja may jàmm jàpp nañ fii ko may waaye ba ci bandi yi sax jàmm dong lañ bëgg moo leen tax bandi nit ñi nag dañoo wute fu ñu koy jaar rek boo fee nit ñi muy bëggee ngëneel ci toujours léegi nga xam ne lu baax lu ne boo ko wéeree ci moom mu bëgg lu bon lu ne boo ko wéeree ci moom mu naqari ko mooy tax nit ñaare sa mbokk mën naa am euh, dara nii nga félicité ko waaye félicitation bi ci kaw képp la yem ngir bëgg ñu tagg la waaye biir ba moom dara neexu la ci loolu jikkoy doomu aadama day am day am bu ko defee nag léegi bu dee ña ñuy tuddee ay caddo moom dañ koy fësal faa ngi rek yor yor yor mën na yor fetal rek léegi dem rey nit mbaa nga xeex moom mbaa nanga naa ngir ngir lam am nga nga nga xañ ko ko pour jël ko ceddo yi noonu la ñuy doxe doomi soxna yi ni ñuy doxe mooy ca suuf la koy def kii da koy feeñal ci kaw kii nëbbu ko ci suuf rek waaye benn loolu jikkoy doomu aadama illaa moo tax ñu maa wax def benn benn benn tubaab boo xam ne dafa am rakam ju mu bokk lépp ñu bokk société di liggéey di liggéey liggéey ba mu ber xale bi xale bi société bi jàll jàll jàll ba ëpp mu jël fetal ñoo ne ko tëf rey bañ ko yóbbu tribunal di ko àtte ne ko lu tax nga rey ko mu ne parce que il réussit de trop rek mu jeex amu ci lu ko ci neexul lu wees daal dafa jàll bopp kon da nga gis nit mu bañ mbokkam waaye lu mu ko bañee dara parce que dafa jàll lu mu ko bañee dara parce que ni mu jàll dafa jàll loolu neexut lijjanti loolu ba loolu moom ki nga xamante ne lim meree moroomam du dara lu weesu lim jàll ku loolu doon lu ñu ma lijjanti ndax sëñ Tuubaa sa mënu ko woon lijjanti sëriñ bi dafa waxoon ne ki ñëw ci man ngir àdduna jaaxlu ma ku fi ñëw ngir mbirum yàlla àllaaxira jaaxlu ma ndax lu ci ne suñu borom jox na ma ko bu mat sëkk te dama koy joxe kama jaaxal daal mooy ki nga xam ne ni ma sama borom def def neexu ko ginnaaw nag léegi kooku jaaxal ne ko dana jaaxal ku ne te mooy ki nga xamante ne bi mu lay bañ mbañeel gi teg ko fenn fu weesu ne dangaa jàll moo tax mu bañ loolu neexut lijjanti moom la sëriñ bi wax ni wala yasurruhu madal azmaani siwa halaakihi bila tawaani daan ni kooku nag dara du ko bégloo lu daan nga nga alku rek bañ fee nekk daal moo ci moo koy moo koy bégloo ñaar loolu kon mooy fànn gi am léeg-léeg ci diggante nit yi sax nag juyoo juyoo juyoo ci diggante nit ak nit li koy gën gën a waral la ëpp ci li koy gën gën a waral ñaari mbir la wuute ci ay gis-gis mbaa ngeen am intérêt yu ngeen di xëccu benn intérêt bu ngeen di xëccu kenn ku ne ba caa jot mën naa indi xiiroo ŋaayoo ba ci xuloo ak ba ci xeex naka noonu wuti ci gis-gis mën naa dem ba indi juyoo bu mën naa indi xeex ci diggante nit ak nit juyoo boobu mooy am ci diggante waaye la koy gën gën a waral nag mooy xëccoo dara jëmba alal rek adduna rek waaye yàlla moom jërul xëccoo ndax dafa yaatu loolu mooy am ci diggante ñaar ñi wujje wujje ci lu mën doon rek xëccoo boobu mooy am seen diggante mooy benn intérêt bi ñu seq ku ne bëgg koo aaki moom mooy indi ku jegi ñaar mooy dox ci diggante ay doomu baay muy am na benn intérêt bu ñu xëccoo kenn ku caa jot dana dox ba ci ba ci diggante ñaari nit ñu bokk sax benn baay mbaa ñu bokk ndey baay sax xëccoo ay intérêt mën leen indi indil ak noonu ba ci xeeroo ba ci ŋaay ba ci xuloo ba ci xeex mooy dem bay dox diggante ñaari réew yu frontière dafa am benn intérêt bu buñ cee xëccoo mooy waral xeeroo bi ngay dégg ak ŋaay ci diggante ñaari frontière doo ko dégg ci ñaari réew yu soree fi toll nii lu ci ëpp ñaari ñaari réew yi frontière ñooy xëccoo ko xeeroo ko ngaayoo waaye bu ñu soree sax amatuñu intérêt bu ñu xëccoo doo dégg ci xuloo boobu seen diggante moo tax ñaare saa bu yi xaajali ko rek xuloo ba jeex cool cool cool a jeex naka noonu xuloo bi xuloo bi dox ci diggante nit ak nit ci kaw wuute ay gis-gis lu ci ëpp ñaar ñu bokk waaso lay dal ñaari boroom xam-xam mën nañoo bañante ngir ne dañoo bokkul gis-gis waaye boroom xam-xam bi ak commerçant bi doo leen dégg ñu xulo commerçant ak commerçant mën nañoo xulo bañante ngir dañoo bokk ay intérêt waaye commerçant bi ak boroom xam-xam bi jotewuñu dara naka noonu ci biir politiciens yi ñoom ci jëm bopp yi ñooy xuloo xeex ngir dafa am intérêt yu ñuy xëccoo xëccoo intérêt mbaa mbaa ay gis-gis moo fi andi xuloo yi ak xeex bañante loolu nag ci yàqu-yàqu yi gën a rëy ci lu yàq diggante nit ak moroom ji ci la bokk mooy yi ma wax ni diggante nit ak nit moo xam bokk dina ma bokk lu ci ne rek yooyu daf ko yàq kon bu doon xool solution ci yooyu ma wax yàqu-yàqu yooyu di am ci biiru bokk gannaaw bu ñu bokkee ba noppi di xeloo ko ngaayoo ko xëjoo xuloo ngir damay wax ni la koy lijjante suñu borom saxal na ko ci alxuraan ci ku gëm alxuraan ndax dafa wax ni jullit yëpp ay mbokk li inamal mu'minuuna ixwa dem ba ci biir mu ni fa mu ni fa aslihuu bayna axawaykum na ngeen di defare seen diggante diggante mbokk yi na ngeen koy defare kon loolu lañ ci jëkk dégg mooy saa bu xiroo ak ngaayoo amee ci diggante ñaari nit mbaa ñaari mbooloo la yoon ci jullit yëpp jullit bu fa jëkk jege rek yoon la ci yow yàlla dina ko digal nga seet noo ko defare jóg pour defar moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee màkk bi mu jógee màkk ñëw madina li mu jëkk a lijjanti ci diggante lansaar yi ak muhaajiroon yi mooy mën naa am da caa banamti ku xetug ni ñii ku leen bàyyi ñii dañ naan ay nas ay ansaar la ñii ne ay màkk màkk lañ jógee ay muhaajiroon lañ mën naa am ñu def ay kuréel daal di tàmbalee weddante ñee takkutu fee ñee takkutu fee nam ko lijjantee mooy dafa jël kenn ku dëkk dëkk màkk ku ne boole ko kenn ku dëkk madina ni leen yéen ñaar yéen a bokk lépp lu ngeen am na ngeen ko bokk mbokkale googu mu leen boole nag dana tax kon kuréel di juyoo du mënante nekk la kon lijjanti na ci ñaari mbir lijjanti na ci bañ ñuy def kuréelu Màkka ak bu Madina di bañante lijjanti na ci wàllu économie parce que dañ faa bàyyi seen alal bàyyi fa seen i fa seen lépp nii bu jëlee kii amul dara mu boole ko ka am lu bari ni lu ngeen am na ngeen ko bokk kon lijjanti na wàllu économie ñoom itam nag ñu gëm jàngale yonante bi ba am na ci kenn koo xamante ni dafa wax kañ ko boole loon ni ko ñaari jabar laa am seetal ki la ci gënal ma wàcc ma wàcc ko nga fa nga takk ko alal it kenn ëppale ma ko ci dëkk bi damaa bëgg xaaj alal ci digg bi jox la ko waaye kooku moom itam ci mbaax gi ko yonte bi jàngal ak diggante bi mu am mu ne ko yàlla na yàlla defal barke ci sa alal ji defal la ko ci sa njaboot gi bàyyi ma rek te wan ma yoonu yoonu marché bi ma itam moom mu bàyyee ko alalam ak njabootam ñu wan ko yoonu marché bi mu liggéey mën a mën a am lu lu mu jàpp jullit a jullit toujours na la war a mel toujours naa la yéene sama lépp ni ma la ko yéene nga yéenee ma ko pour bàyyee ma ko ma itam boobaa dañuy ànd kon loolu réglage bi bokk na ci ni ñu koy réglé ba tey ñuy fàttali nit ñi di fàttalee ci yow miy defar nga fàttali ñaari côté yépp ci ni ngëm gu dëggu moom kooku ko gëm bokk na ci nga gëm ne suñu borom mu seddali wërsëg yemalewu ko ni mu defee nit ki mu doon ab sénégalais kee doon ab américain kee doon ab saoudien noonu la seddalee gàtt ak gudd ñuul ak xees noonu la seddalee alal yi dara tollawut yàlla moo ko programme noonu boo xamee noonu nag xam ni yow bi nga juddoo juddoo Sénégal mënoo muusa ka macet ba juddoo fenn fu Sénégal bi nga juddoo xees mënoo muusa ka macet ba ñuul ak loo ko bëgg-bëgg booy juddoo ñu leen mënoo fexe bokk ci ñu xees ñi mënoo mënti nekk loo mën a def da nga ko def muy ay loo kere ci kaw ni waaye wérut léegi dëgg kon nit la ko suñu borom cërale fokk mu jot ca dara mënu ko soppi ndax lu rëy lu nit rëy rëyub cër du yóbbaale kat cërub nit cërub nit ku bëggit ba fa ñaar bee nga xam ni nit ñi kenn amu ci li bëgg loolu boo koy xam da nga libéré nañ ci lañ nekk seet li nga nekk nga nekk ci ndax am na góor gu daan wax ni koo ñëwee ñëwul boppam ku leen ni maa la man ne ci gan wet kenn mënu la ci wet yëpp fi mu toll nii yàlla muyul kenn lépp xëñul kenn lépp adduna kenn du ko dëpp néegu dañ koy péngu ku nekk laa ci nga cam xuma da ngeen xam bëgg dëpp néegu péngu mag ñi dañ ko xam wax mbirum mbay la bay kenn du ko dëpp néegu dañ koy péngu ku nekk awlaa ci nga cam daal di wax ni ndomb ak ngëneel dajul ndigg sagar lañ jot le kenn mënta wax ne ni ko maa la gën a lépp mënoo ko gën a lépp boo ko gënee gudd mu gën laa gàtt boo gënee boo ko gënee xees mu gën laa ñuul boo gënee rafet mu gën laa ñaaw waaye maa la gën a lépp moo mënta nekk moo tax mu ne ndomb ak ngëneel dajul ndigg sagar lañ koy jotale yàlla it kum lancal boole ci ab kurit wan mbaa yàbbi nii laa ko bëggee ak fii laa ko bëggee yàlla mooy kenn loolu daamati xam boo xasee xam cër bu la yàlla cëral rek danga ko téye te sant ci yàlla ñaareel ba it ñu xam ni bokk na ci liy defaree yàqu-yàqu yu mel noonu yi ñu xam ni yàlla nangu ab dogalam bokk na ci li gën a mën a may nit aljanna ëllëg ndax ku mel ni Abdurahman ibn Awf loolu moo ko dugal ci al hashra al mubashara bil janna dafa yonte bi daa toog ci jotaay daal ne am na ku ku bokk ci waa aljanna kuy waaji ñëw te ci bunt bii lay jaar Abdurahman ibn Awf ni ñoo xeet jaar ci buntu boobu ci àll si waxtu boobu yonte bi waxate ko ni am na nitug aljanna kuy waaji fii lay jaare kooki ñëwoon dem mu ñëwati ñetteelu fan ñetteelu fan bi mu waxati ko mu mu ñëwati mu ñëwati kenn ci doomi saxaaba yi Abdullah ibn Amr ibn al-As mbaa Abdullah ibn Umar ibn Xataab dañ ay ay nattable la kenn ci ñoom jóg dem topp ko ba këram mu ne ko man kat damaa am ak sama baay ak juyoo ma bëggoon fu ma dallu ñetti fan mu ni ko kër gaa ngi nii maa ngi yow bokk mu nekk fa dafa fanaan di xool ba xam nan lay jaamoo yàlla ngir ba ko mën a toppandoo waaye gis na ni bu julli gee jotee mu julli def safaak wéet dem nelaw bu fajo jotee mu dem mu am fa ñetti fan gisul daal mu gën a tar nit ñi ak jaamu yàlla mu ne ko man li ma jaaxal mooy damaa toog ci jotaay yonte bi ñetti yoon mu wax ne am na ku bokk ci waa aljanna koy waaj ñëw nga ñëw loolu moo sababoon ma ñëw jotewuma ak sama bàyyi dara damaa ñëwoon pour bëgg xool si nooy jaamoo yàlla ngir ma mën laa roy mu ko lii nga ma fekk ci la nekk ginnaaw mu ne ko waaye li ma seetlu ci sama bopp mooy lu nit am rek yéene naa ko ko mu ne ko loolu yi moom nga roy nit ñi te ma ko lijjanti sama bopp mu ne ko loolu nga te mënu ma ko lijjanti mënu ma ko dàq kon kenn par kenn bu ñu koy lijjanti noonu la ñu koy lijjantee kenn ku ñu waxtaan ak yow ci fàttali diine ak yàlla dëgg-dëgg nga fàttali ko boo ko fàttali ko rek mën na laa dimbali ci yu bëri bëri la kii nii la kii nii la kenn ku ne feddi ku jëm fenn te loolu am na mag muy sama benn baay bi wax ne Afrique ñoom bëri wuñ bëri wuñ bëri la biñ bëri la bëriwut bëri wuñ buñ booloo wul lu ñuy dal booloo gi képp mooy suñu jàmm fexe bay booloo booloo gi tekkiwut kenn ku ne bàyyi la nga nekkoon dem fekk sa morom waaye kenn ku ne nekkal ci tool bi di bay ñu jàpp ne damaa nekk ci waar wi di ci kenn a ku ne nekk fa nga nekk yi juyewuñu rek moom la kenn mënut lijjanti suñu borom nag li mu ci wax ci mbooloo mu weddante mooy wa in taifataani moom sax waxul bañante waaye xeex wa in taifataani min al naq qtatalu fa aslihu baynahuma daani waaye nag ñaari mbooloo yi bu ñu xeexee yéen jullit laa digal ngeen dem defaree ko bu ngeen defaree ba xam ni tooñ gi fii la bàyyi ko ni ngeen amargoo kooka ka tooñ nag ñëpp takkatoo weddi ko ba mu xam ne nekkul ci dëgg fa in baxat ihdaahuma ala oxra fa qaatilu llati tabri xata tafe ila amrillah mu ne bu fekkee da cee am kuñ xam ne moo bu wóot nanguute ñëw na ko ñëpp eng amal goo xeex moom ba mu jël si waat ba mu ànd àndaat ak mbooloo mi ci dëgg te loolu jamono bu ne jullit bi ne da war a bàyyi xel nag kon fokk ñu jàppalante ci fànn yooyu jàppalante ci defar suñ kem kattan bu ñu defaree ba xam ne yàqu-yàqu bi fee la bàyyi ko ñu takkatoo pour pour yàqu-yàqu boobu lijjanti ko waaye nag boo xasee bay atte it atte ñaar ñu juyoo mbaa ñaari mbooloo juyee nga atte ci dëgg ci maanute atte ci nag la muy tekk mooy nga àtteel ka am dëgg nga jox ko te yàlla képp tax waxuma nag àttekatu góor gi am na ku ñuy wax sëñ Abdoulaye Jaxum ba daan nettali ni àttekat bi dafa war a ñaar ñi war a àtte wu kenn ki ñëw ci guddi gi jox ko xar mu mag mu ne ko baax na ba bismillah yaay yaay am dëgg le ginnaaw bi kàcce si ñëw jox ko nag bu mag nag nag bu mu ne ko yaay am dëgg <laughs> joxe na ñaari dëgg <laughs> àtte bi ñëwagul bi àtte bi ñëwee léegi mu xool xool xool di borom xar mi daal. yow mi yow la ñëw yaa yow la ñëw mu ne ko mu ne ko mbee mbee yee nañ mu ne ko bon yee nañ la mu mel ni moom attekatu bi sëñ Abdoulaye Diakhoum boobu laan laan loolu lijjanti wul àddina waaye la ko mën a mooy attekatu bu mel ni Abdullahi ibnu Rawah ki yonente bi sallallahu alayhi wasallam yónni woon yonente bi bi mu bi mu ñëwee fatwa Xaybar dafa fekk ay yahud ñooñu ne ko léegi yéen du ngeen ay baykat te ngeen noo bàyyi ñu bay suuf si buñ ko bayee léegi bu ñu àggee ci ci bu waxtu jotee ñu seddoo ko ci digg bi léegi ngeen am seen wàll ñu am suñu yonte bi d'accord ci loolu mu yebal fa ku ñu wax Abdoulaye ibn Rawaha ne ko boo demee nga nga natt mbay ma ñu xayma ko ba xam ñun lañ am lañ ci def lii xew ci jamono ji rek ni ko léegi ci ngaa kaay ñu mosal la tuuti nga def ci sa poos léegi te Mouhamed nga leeral ko nangam nangam mu ni leen gis ngeen yéen ñi may waxaat nii ñu ne ko xam ah mu ne leen yéen laa ay golo ma leen gënal ay golo gis ngeen yonte ba ah sama day sama baay sama bopp waaye nag li ma koy bëgg-bëgg ak li ma leen di bañ-bañ nag duma ma yóbbu ci ma doxal ak lu dul ak mandu sama dente li ma koy bëgg-bëgg ak li ma leen di bañ-bañ du tax ma doxal lu dul ak mandu te sama diggante ak yan ñu ne ko li nga wax ne asamaan ak lépp ci commandé ko la taw pour wane ne lu saa am rek jàmm rek am <coughs> mandu googu yàlla leeral ci liy dox li liy defaree ab diggante di tere lu koy yàq muy dafa araamal kuy reetaane reetaan sa bokk ak sànnente ay tract tuddee ma tur woo xam ne bëgguma koo dégg mbaa kee nangam na ñi ay wahab yoon la ñi ay salaf yoon la ñi ay sofi la ñi ay nangam tur yooyu loolu tract yooyu képp am na lu mu yàq <coughs> yàlla daf koy tere ñaaw njortu ba tey bokk na ci li nga xamante ni lu yàqu ci ay diggante moo koy yàq ñaaw njort nit dañuy bëgg mu rafetal njortam jullit fi mu toll nii dafa wuteeku bi yéefar ndax yéefar bi lu ci ëpp day weddi lépp ba ba muy yës jàpp jullit bi daa war lépp loo ko dindiloo ab safaanam la lu mu doon rek gëmal boo gisee ñu naan sëriñum naale sëriñum naale mooy dëgg fi mu toll ci ab jullit jullit dëgg naale leen mooy lu ñu ko wax da koy bi nag mooy jël ak ñaaw njort moom di ci dox mooy lépp daf ko weddi ba ci sax mën na ko gis muy dëgg sax mu jàpp ni ay erreur du dëgg moo tax yonente bi yéefar yi dañ ko ni léegi bala ñu laa mën a gëm daal da def nangam mbaa nga yéeg ci kaw asamaan si andi lu ab téere te même téere boobu sax boo ko wàcce woon duñ ko gëm mukk boo moom bu ñu seenu nga yéeg ci kaw asamaan si duñ gëm da nga yéeg ndarab da ngaa wàccee ab téere bu leer ñu di ko jàng mu ngi leen xool subhaana rabbi mooy ba ci dëgg gi sax man naa tax ñu weddi ko waaye jullit ci ak rafet njot lay teg ay mbiram waaye du ko teg ci ñaaw njot naka noonu toppatoo ñaawtee fi nit di ko di ko tasaare ci mbedd loolu ba tey bokk na ci li yàq li ñuy wax youtube danaa koy wax fu ma toll youtube ci rambaaj yi gën a mag ci ndax nit mën naa toog képp nii nga jël ko ci portable bi yóbbu ko ci youtube bi mu doon mu mën a tukkal àddina lu bàyyi xel la ci bala nga ko dugal bala ngaa dugal waxtaan wi nga xool ba xam lu ci lu ci nar a indi ak yàq sax nga dindi ko jar na ko ci bu fekkee da nga nar a <coughs> jëw jëw fi mu toll nii toog rek di wax ci dara nit nangam loolu donte dégg ko ci noppam xolam daf koy yëg fi mu toll ki nga ki nga ki nga xamante ne dangaa toog rek di wax ci ab daram lu ko lu baaxut nii xol bi day yëg ni yow mi euh, dëkkaroo ak moom xol yi moo ko yëg xol yi day gis fi mu toll boo ko nobbi déggutul xolam moo koy dégg boobu bàyyi moom dina am lu mu yëg ci yow ci façon bañet moo la ndax fi mu toll da nga gis nit ki tey nga ko jëkk gis am ci moom ak cofeel tey nga ko jëkk gis doo man ci moom dara yonte bi moo ne al arwaahu junudun rafe fa ma taarafa minha taalafat wa ma tanaakara minha tanaafarat ruu yëpp dañu leen defoon ay soldats yoo xamante ne ña ca xamante woon ci jamono ci asali dañuy daal di bëggante lool man a mën a jàppoo waaye ñi ci xamante wutoon dañuy fañante kon jëw boo gisee ñu koy aramal mooy li mën a yàq dafa bari rambaaj it noonu rambaaj mooy nit waxtaan nga tuxal ko tuxal boobu sax laaj bi loo xam ne moom itam youtube ci yi ci ci gën a rambaaj ci àddina bi fàttaliku it saxaaba yi ni ñu ànde woon ci ak mbokkoo ndax am na benn xare bi ñuy wax maarakatul yarmuk nett naa ko ay yoon maarakatul yarmuk dafa am ñeent ñu daanu ba tëdd di la ci la ci am ku jël ndox di leen ko may bu àggee ci kii mu jàpp ni kee moo ko ko gën a yeyoo mu joxañ ko ko mu dem ca kee kooko jàpp ni kee moo gën a sonn mu joxañ ko kee mu dem ca kee kooko joxañ ko morom ji ba mat ñeenti nit ñoom ñëpp dañoo mujj faatu ba pot ba kenn nanu googu yéeneente jàmm nag façon bi mel noonu ñu di ko bàyyi xel baax di ko xalaatal moo ne ko nattee ci njabootu Serigne Touba gi ci seen jëmmi bopp yi noonu lañu daan doxee ndax sëriñ Abdul Xaadir dama daan gis mu daan gane si sëriñ Sonia bu ci bésu alxames dafa ñëw bu yendoo bu ñëwee sëriñ Sonia day génn ab néegam jox ko dem ca wàll moom sëriñ jox ko caabi jàkk ji sëriñ Abdul Xaadir mooy jiite ba ni mu fiy jógee maanaam mooy bu heure fatom jotoo day mel kër mu këram nekk bu heure fatom jotoo mu fatu bu heure ubbi mu ubbi ba ngoon sëriñ Sonia bu ñëw ñëpp teew ñu waxtaan ñaanalante waaye saa bu ñëwee moom kër gi bu muy dem jëflante bu rafet boobu it ñu di ko jàng ci ñoom waaye du du jàng lii lañ koy bàyyi rek toog di xoole mag ñi noonu daan dañoo wax ne dafa am ku ñëw ci sëñ Mbàkke bu su ne damaa am ñeent soxna euh, sama nijaay jóge fi bàyyi fi ñetti soxna ñu bëgg ma koo jox ma ne laaj lu ci yoon aate soxna xat yi ngi jàppoon sëñ Mbàkke dina fab dokk bi rek ngàdd ko ngir li ma xam ci moom ñett la ñeent laa yoon bu caa doolu ñett waaye sëñ Mbàkke dina ko ana yow koo gënoon di siyaare ji ci fere yi mu ne ko Cheikh Ibrahima mooy sama sëriñ mu ne ko waaw kon da dem laaj ko ko bu demee ba waxu la ci waxu la la ci waxu la ci dara boo ñëwee ma wax la ci la ma xam waaye daf koy delluwaat ci kilifaam loolu li fiig mi am jàmmayam kon diine lépp loo lu yàqu rek rek na waaye bu dee am xel kese kese kese xelum kese kese sax am na xel yoo xamante ni li ñuy lijjanti moo tax nit mën naa jàng diine lu yàgg du ko dégg nga dem gëstu beneen téere boo xam ab tubaab ko bind ba ab yëfa sax nga déggee ca ci lu la dina jàngal nga xam ne déggoo am na ko ne ko wax ni jàng na lu mat ñaar téeméeri téere ci séeréer yonent bi sama te am na ci loo xam ne ci téere tubaab yi la ko déggee pour mu dégg ni lii la ci yonent bi jublu fii la ko déggee ci téere tubaab moo tax ma ne dafa ñuy wax Stephen Covey moo wax ni mboolem ñi fi mas a réussir ci àdduna taxawal fi lu leer jikko ji dañ koy jikkoo ñu bàyyi ko xel bu baax jikko yi lu nit am nga yéene ko ko booy jari booy jëflante ak nit ni nga yéenee sa bopp njariñ noonu nga ko ko yéenee moom wax na ne bi mu ko nattee mbooleem ku fi mas a taxawal dara ci na lu leer jikko yooyu da ko jikkoo jikko yi koy seqal ni nga yéenee sa bopp njariñ da nga yéenee ku ko njariñ moom te xanaa loolu yonte bi jàngal nañu ko ndax yonte bi ne woon na laa yuminu ahadukum hatta yuhibba li axihi maa yuhibbu li si kenn ci yen du gëm dëgg-dëgg ngam te du dafa bëggal mbokkam la mu bëggal boppam Sëriñ Tuubaa jàngal nañu ko ndax dañu nit ñi dee leen jëflante ñoom ni ngeen bëggee ñu koy jëflante yéen wa aamilin naasa jamian dahraka kama tuhibbu an yakunu maaka nit ñi ngay jëflante ñoom ni nga bëgg ñu di ko jëflante ak yow relation yi ñeenti xëyt relation yi ñoo relation boo xamante ni da ciy jariñu mu jariñu ci moom beneen relation ñaareel mooy bi nga xamante ni da ngay jariñu lor ko moom ñetteel mooy bi nga xam da ngay lor sa bopp jariñ ko bu ñeenteel bi yéen ñëpp ci loru yéen ñaar bi ci gën nag mooy bi nga xam da ngay jariñu mu jariñu waaye relation bi nga xam ne da bëgg a jariñu bëgg ko lor bu ngeen doxee tuuti moom day xalaat day xalaat a jariñu nga loru loolu li nekk ci yow mooy nekk ci moom bu ñaareel bu ñetteel bi nag mooy bi nga xam da ngay bëgg a nit ki ba lor sa bopp te mooy nga ubbil ko sa bunt yëpp ci ci lul benn condition bu ñeenteel mooy relation guerre ab xeex saa bu amee diggante nit ak nit ñëpp ñëpp ñëpp ci ñëpp ci am wàññal moo tax mat mooy moytu ab xeex ni te saa bu tàmbalee kenn fu mu yem kon daal mooy di yéene ñëpp jàmm ndax nga mën a am jàmm te nit dañuy wax ni banque sentiment dafa mel ni compte bancaire boobu sentiment bi nekk ci nit ki bépp jëflante bu rafet boo jëflante nit ki day mel ni da ngaa versé ci compte bi dara waaye bépp jëflante bu boo jëflante nit ki day mel ni da ngaa dara ci compte bi li nga seqaloon nit ki daal ab banque la boobu compte bancaire la boobu bi saa boo jëflante jëflante bu rafet mel na versé nga saa boo jëflanteeg moom benn jëflante bu ñaaw mel ne da ngaa retiré mën ngaa dem nag ba verser ba compte gi fees dell ba sa digganteeg moom tax ba nag waaye mën nga ko retiré ba dara dootu ko des ba mu bàyyi la définitif loolu day am loolu loolu daa ma di bàyyi xel jëflante bu rafet bi nag mooy lawet ak tey yonent bi dafa waxoon ñaari jikko la yàlla bëgg lawet ak tey lewet ak tey te suñu borom day defal nit ki ñaari force yoo xam ne bu ci ne dafa am lu muy jëriñ ba ci naqari deret am lu muy jëriñ naqari deret ni am lu mën a lijjanti neex deret it ab force la bu yónni bu nit ki yor boo xam ne dafa am lu mën a lijjanti te suñu borom bi waxee ci benn xadis ni inna rahmati taglibu ghadabi sama mer sama sama yërmaane moo not sama mer ci la ñu xamee ni neex deret force neex deret kon moo ëpp doole force bu naqar deret ci nit ki jamono bu ne rek looy lijjanti nga lijjanti ko ci njëkk ak teraanga moo gën nga lijjanti ko ci xët-xët akub xeex ak teel-teel kon mbokkoo gu wér yëmul rek ci ndaje yi ñuy daje par at at nu ñu daje rek saafawante jàmmante dal di jëf jëfandiku naan kafe daal di dem suñu yoon mu jeex waaye mbokkoo gi ëpp na loolu rafetal gi ëpp na loolu ndax suñu borom def na defal nañu juróomi ndaje yi ñu war a daje ci bés bi muy julli juróom julli juróom ku dégg xikma bi doo dem rek julli rek daal di gëm dem seen waaye day bëgg nit ñi di xam ba xam sa mbokk mi ndax am na jafe-jafe lu ko jot lu ko nangam nangam bu ko defee lépp ñëpp mën ci taxawandoo loolu daanaka mooy xekk ma ñu taxawal julli juróom bëgg yi ñu koy julli juróom mbooloo ngir bëgg lu dal sa morom nga xam ko lu nekk ci moom nga xam ko fu jàppalante mën a am mu wutal ni beneen feet boo xam ne mbooloo dañuy dajaat muy bisu aljuma semaine bi kon beneen feet am na ci semaine feetu une semaine fee juróomi ci bés bi ak men daje semaine bi muy aljuma ba tey xekk ma ñu xamaale ko ci mu defaat yeneen ñaari feet yoo xamante ni at ba at lay doon muy tabaski ak ko ñaari feet ci at waaye mu def beneen feet boo xam ne ndaje lay doon moo xam ne ndaje mu adduna bépp benn yoon lay doon muy aj aj màkka moom benn yoon la ci sa gërug dund yooyu yëpp nag dafa am lu ñu ci war a jànge ci nu war a ànde ak nu war a jëflante ak nu ñu war a jàppe ndaje yi mel ni dañuy wax ne ndaje yi ñuy daje par at moom mën naa am njariñ waaye nag njariñ li da dul bare ndax ni muy toll mooy mi ngi mel ni Euh, may jàng ba examen bi jub si rek ma gaaw jël téere yi rek patam patam fexe ba at mi rek danaa at mi waaye la ma war a xam xawma ko li ma war a am te amu ko naka noonu relation bi war dox si diggante nit ki boo ko rafetalee ci benn bis mi nii mën naa rafet waaye lay tax mu rafet continuer mooy jamono bi ne ngeen di nemmi compter diiru at jokkoo kon wax ak mbokk wax ak jëf la wax ak jëf am na ñoo xamante ne dañ koy lijjantee ci wax ju rafet rek bu jaxee jax ñu dem seen ñuy jëf leneen waaye fekk ne wax ju jub moom mbax na waaye nag jëf ju jub ak gën jëf ju jub jëflante bu jub bi moo gën wax ju jub ci rek yam ci daal mu jax mooy ida nasabu lil qawli qaalu fa ajmalu walakinna xusna al qawli xaalafahu al fi'lu saa bu ñu demee bay wax daal dañuy wax rafet waaye nag saa bu ñu jëfee mu wuti lañ waxoon te nit bu ko waxee bu ñu waxee nit nag mooy li muy jëf tam bàyyi ko ci xolam moo xam lu baax la mbaa lu bon la loolu mooy nit waaye leneen la nga fexe bu formalité ko képp wane ko loolu mu ñuy wax nit du kooku duñ jàpp mooy kii doomi Sëñ Tuubaa nag kon ak magi murid loolu moo waxoon léegi rek ak cofeel gu dox seen diggante goo xamante ni gëj a gisee du ko soppi luñ gëj gëj gëj rek lañ jàppoon ma nga fa loolu mag ñi Sëñ Tuubaa yaroon ci loolu lañ nekkoon jëmmi njaboot gi ci loolu lañ nekkoon kon da xanaa damay bi muy loo xamante ni moom itam ba tey lu am solo la mbokk dafay jàpp ndénkaan bi ma ki ma tubaab bi ma turoon moo ko wax dafa wax nit ñi ay texet lañ nit ñëpp ay texet lañ seen njariñu bopp képp leen ñor waaye nag nanga nga leen bëgg rek xalaa ku leexal fukki ndénkaan la boobu mooy bi ci jëkk nit ñëpp la wax ne ay texet lañ seen njariñi bopp képp leen ñor waaye bëgg leen de toute façon bu ñaareel bi mooy nee na loo mën a def ci lu baax lu baax loo mën a def nit ñi danañ la tuumaal ni dafa am sa intérêt bopp boo làq ci suuf rek maanaam dafa am daal sa intérêt booy lijjanti waaye du dëgg duñ ko gëm waaye loolu bu la teree def lu baax teewul defal lu baax mooy nee na lu baax li ngay def tey ëllëg nit ñi dinañ ko fàtte na ko xam moom kenn nu mën a fexe ba def lu baax mu continuer abadan dañ koy fàtte waaye fàtte gi ñu ko fàtte bu mu la jaaxal continuer defal lu baax rek nit ki nee na saa bu réussir dana am ay xariti fals ak noonu pire noonu dëggantaan waaye nag fexeel ba réussir rek yow ki nga xamante ne dafa dëggu fokk mu ay critique waaye nag fexeel ba dëggu rek dëggu moo gën lu ñu la critique critique fexeel ba sax ci dëgg xanaa lii mooy li yonent bi wax ne al hikmatu dallatul mu'min hikma fu ne la ko yàlla def waaye nag foo ko ab jullit fekk na ko jël lii ki koy wax da day mel ni ab jullit ko wax ndax lépp daa jullit mu wax ne nit ki gën a gudd ay xalaat yi ki gën a gàtt ay xalaat mën na ko gàllankoor waaye nag fexeel yow ba gudd ay xalaat fexeel yor xalaat yu gudd wax na ne li ngay tabax di ko financé ay at nga koy tabax jàppal ni mën naa xëy daan ba gont daan bu mu la jaax waaye loolu bu mu la tere tabax nag xam nga xam ne tabax bi mën naa xëy daan ba mu daan bu mu la tere wax ne nit ñi dañoo woon dimbal lool te que leen gën a dimbale sax maanaam moom la ñuy gën a attaqué waaye teewul nag na nga leen dimbale rek xalaa ku leer waaw mooy nit ñi mën nañoo bëgg ku néew doole waaye bu ñu xasee bay topp borom doole la ñuy topp <laughs> waaye nag yow jàppale ñu néew doole rek bul ba jës mooy li gën ci li nga yor boo ko joxoon waa àddina bi it dana am ñu la fay lu ñaaw waaye fay googu ñu lay fay lu ñaaw bu mu la jaaxal bu mu la teree def lu baax fa ba gën ci li nga yor nga jox ko adduna loolu jëflante nit ak nit ñu ngi koy teg ci jëflante ni nit dafa néew doole bi muy juddu indaale wu dara xamul dara mënul dara kon yàlla ajoo na yàlla bépp seconde waaye nag noonu la aajowoo nit ñi ci jamono bu ne tout le temps ba ba muy dugg bàmmeel day aajowoo nit ñi ba bu muy dugg bàmmeel bañ dugal ko ci biir bàmmeel di day soxla nit ñi ginnaaw bu ñu ko dugalee ci biir bàmmeel sax day soxla nit ñi ci ñaan kon ñu jàppalante te xam liñ bokk ak liñ seq lu am solo kon fokk ñuy bëggante. fokk ñuy jokkoo di yërëmante di takkoo di muñalante di dimbalante ci lu baax te xam ni jullit jullit mooy mbokkam yonent bi dafa xam ne al muslim axul muslim laa yaslimuhu du ko toñ du ko ko nax du ko xeeb du ko seetaan lu mu dugg yi ne ko ci jàppale daal nit kullul muslimi alal muslimi xaraama damuhu wa maaluhu wa irduhu jullit jullit bu ne sa moroom jullit deretam araam na ci yow àllam araam na ci yow ab deram it araam na ci yow bul lekk àllam bul yàq ab deram bul tuur deretam kon maa ngi sant mbooloom bu baax di sant gaa ñi nga xamante ni ñu organisé lii at mu jot ñu koy wootee di leen sant di ñaan suñu borom ñu teew ko ay ati at te lépp lu ñu ci def rek suñu borom nangul na ko làqal na ko fa yàq yéegul di sant mbooloo mi ci teewaay bi ak euh, rafet njort gi ak ak déglu gi ak tey gi lépp noonu leen ci sant leen gërëm ñaan suñu borom may nu ak dégg ak topp ak jariñu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala ma dégg <laughs> maa ngi jéglu sax ci baatu français hmm. waaw ñoo ngi ñoo ngi ziar suñu mbokku taalibe yëpp te maa ngi wax ci turu Ahmadou Bamba Thiam Ahmadou Bamba Thiam moom mooy président fédération nationale des mourides de France te fédération boobu dafa dugg ci li ñuy wax jamiyatu taxawuni ala taxawdullaahi wa rasuulihi muy mbooloo mi nga xam ne dañoo ànd di dimbalante wala di jàppante ci topp yàlla ak yonenteem man awma compétence linguistique en arabe waaye defe naa seen bas xel comme loolu la traduire suñu magu ëllëg yi gis na leen ñoo ngi koy rafetlu lool sëñ Ibra Diop jëwriñ di nekku fii waaye ñoom sëñ Ablaye Ndiaye ak sëñ Moustapha Kabara ak sëñ Lay ak ñoom ñëpp ñoo fi di tamit ziare sëñ Xalil Touba yi sëñ Xalil maa ngi lay ziar bu wér di la ziar ci turu fédération bi fédération bi nag am na ay projet yoo xam ne ñu tegoon bi ci njëkkoon moom mooy principe addiya national boobu mais mel na ne fi mu ne ak euh, loolu c'est acquis parce que euh, daanaka muritu France yépp ñoo ngi àndandoo di yóbbu addiya ji waaw comme noonu sëñ Bass xel koom wax na ko léegi daanaka mën na la wax ne euh, muritu France ñoom jàpp nañu ndax amul muritu Aulnay wala muritu Marseille mais murit yépp benn lañu tëkku ci jamiyatu bu loolu ci jamiyatu bi donc premier décembre bii di ñëw incha allah li ñu yóbbu aji di ziaru national ziaru annuel boobu la doon def premier décembre 2005 donc loolu na ko bokk taalibe yëpp amoon nañu benn projet boo xam ne mooy kër googu ñu bëggoon euh, def Marseille mel ne na fi mu ne dajale nañu fi mu ne lu toll ci trois cent dix-huit mille euros waaw loolu nooru maa di am na lu mu ci bayoon ñoom sëñ aale ak sëñ sabara mais euh, ci jamono ji mujj yi tamit euh, tikki yi ñu fi joxe ci Paris gi mel na ne Paris tamit bay nañ seen waar ndax sëñ Khadim Diagne ñoo ngi koy remercier sëñ Bamba moo ne ma boo demee ci mbooloo mi na nga moo du Kara Samb ak sëñ euh, Khadim Diagne ndax loolu liggéey nañ ci te yéen ñi da ngeen leen leen jox ñoom sëñ Khadim Diagne loolu yegg si na ci fédération nationale fédération nationale bi nag jébbal jébbal na lu toll ci 60 000 euros euh, fédération du sud pour kër googu Marseille donc fi mu ne am nañu 318 000 euros France nag am fi xaalis taxoon nga am kër ndax kër yi ñu bëgg day am ay de sécurité yoo xam ne tant que rempliroo ko doo mën a am kër donc ah, loolu ñoo ngi ci ngeen xam ne liggéey boobu donte mat na sax mais objectif fédération nationale mooy fexe ba France gépp am kër donc loolu marché bu amee kër tamit dañuy xoolaat beneen dëkk bu ko soxloo ñu wutal ko ko loolu lépp kër yooyu yëpp dafa dëppoo li di wax des lieux yoo xam ne favorable à l'ouverture d'esprit à des méditations saines qui sanctifient en permanence kooku boo demee demee naa ci man la bul ba fausé ni yi nga xam ne moom la sëriñ Touba danga ko ci gis donc loolu la bu loolu weesoo nag xam naa ne du ma guddal xam naa ne sëñ euh, Khadim Diagne nii tamit bu fekkee ne am na benn information boobu ko wax pour addi yi nga xam ne moom la ñuy fii ci Paris tamit bu ko mënee jàllale une minute tamit mu jàllale ko mais ñoo ngi sant suñu mbokku taalibe yëpp sant nañu mag ñi sant xale xam naa sax xale moom amu fi sant jigéen asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu wala kuréel fédération bi mi ngi dox